kooru gay moolum géej o xaaj ibrahim gay fukki fan ak juróom ñett ci koor gi koor gaa ngi xëccu di jëm ti jeex DG ba nëg ni amagul tus xaaj ibrahim tàmbali la man laata mooy jeexal yaakaaram tas démb dina madinatu jeelaani soppeeku woon na xaal bi dab ko daldi këpp lépp o gay moolum géej tax mu rëccooti tàmbaleeti fas yéeneeti woor koor gu mucc ayib DG daa rek yeddaat boppam waaye gëm na ne yëf yi du neen tax mu jokk dem ñaan lu ji DG gëj gim gëj kër imaam tax mu dëgg ay tànkam daa yegg rek gappare ko ci diggu saal bi fekk imaam doon waxtaan ak kenn ku ko doon ziyaare ànd doomam juróom benn at la tut tànk bi am waajur wi di ko forcé ci koor gi imaam cheikh ah di ngay def baax na waaye nag bul ko ci forcé ndax nekkagul farata ci moom comme julli rek juróom benn tuuti na waaye bu ma tee juróom-ñaari at nga koy tàmbale di diggal fukki at nag mën nga di caw pour ñu miin ko rek waaye du force ci ñoom suñ ma teemu kalaf nag booba force la da nga koy natt ci julli rek yonent bi ne muru sibyaanakum bi solaati li sab'i sinina wadribuhum alayha bi ashri sinina ndax tut tànk boo ko yore ci la nga bëgg mu nekk da nga ko ciy tàggat waaye ba mag mën naa indi weneen jikko góorgóorlu ci waaye tuuti na de naka mu pare rek mu tàllal ñaan o xaaj ibrahim tàllal laale na waa ji jóg génn imaam di jàmmalante alaaj ibrahima naka koor gi DG ranko jaa ngi rot ne gàcce la daal di am tut tànk bii di jéemantu moom moo ngi a troisième âge wóorte ko te li imaam wax fa leer fukki at sax war na tàmbali di jéemantu o oh, DG imaam di wax DG absenté di jooy rek imaam fëgg ko xaaj Ibrahim xaaj Ibrahim o oh, DG dellu si waat <laughs> ah looy jooy ni DG imaam <laughs> bëgg rek su ma la gisee rek damay tàggatoo sama sago man yow rek laa bëgg ci àdduna <laughs> xam na baayam ji xaaj Ibrahim mbaa yaa ci koor gi DG dama ni mbaa ci koor gi oh, wu xaaj Ibrahim bugul wax naka sudul noonu ne imaam kilifaam la ci la yibbiku <laughs> imaam imaam imaam boobu ñaanul dinaa torox de imaam mi weer bi tëra ba léegi saa su nekk koor gi di jeex yëf yi o imaam <laughs> Cheikh yëf yi dikkee ko kaw xaaj Ibrahim dañal ci ni nga nekk mu kalaf nga koor ci yow farata la wax naa la ay yoon yoon benn bës boo tey dog ko kafaara war na xam nga li ci koor DG imaam wax nañ ma lépp waaye njort naa ne def def la ñaanal ma o imaam Cheikh yaramam daw ci la tée ci boppam ngir ñaanal taalibeem bi ñaan ci tàndarma bi tufli jox ko ngir rek bu dog jotee xaaj Ibrahim dogoo ko DG ba mu naan amin ba yëkkati loxo ya di taf ca jaba la jàllale waale tàndarma ba ngir rek ñaan gi mat imaam a ah xaaj Ibrahim ana ma bi DG du ñaan gi du yaama ko jox waaw loolu pour boo dogee la o oh DG <laughs> ca laa fa